matinale euh, préférée di euh, yaakaar ne vous avez passé un excellent week-end di leen ñaanal en tout cas semaine u jàmm euh, semaine u tawféex yàlla def jàmm ci Sénégal ndax réew mi moom lu waay mën a wax jaxasoo na alors tey dañu am mbégte dalal maître Abdoulaye Tine président USL Union sociale libérale nekk itam avocat ca barreau bu Paris Jérôme am nañu gan ñu ngi lay nuyu amati nañu gan waaw. <laughs> di nuyu Maître Tine <laughs> eh. euh, vraiment euh, qui nous a fait l'honneur de de venir euh, participer à l'émission j'espère que bëñ bi tane na. Mm-hmm. <laughs> ndax la dernière fois. looloo ko looloo ko tere woon. Mm-hmm. quand même ñëw ci plateau di jaajëfal ak nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy jamono ji ci Sénégal Matin. très bien Jérôme maître ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ci waxtaan ci simili yi di ñëw ak sa yi nga xam ne ñoo lay topp fii ci Sénégal ak ci diaspora bi yi waxtaan ci tolluwaayu réew bi mhm. ñu leen di nuyu ñoom ñëpp rawatina ak ñi ci jaspora bi di ñu topp ndax ñoom itam ci yu mel nii rek lañuy ñuy mën a xamee li xew ci réew mi euh, ñu jaaxle lool ci Sénégal euh, fi mu toll tey maitre situation bi euh, vraiment doy waar démb lañ waroon a voté muy 25 février élection effectivement mujjul am ndax président daf ko dàqoon dàq mu euh, ajji ko aj ba euh, daf ko wekk ci dialogue bi war a am tey laaj bu njëkk bi naturellement mooy doon ndax maître Abdoulaye Tine ak USL dañuy dem ca dialogue baam am déet. loolu moom dafa leer ñun demuñ ci dialogue. Hmm. Macky Sall tey ci ngoon du ñu gis jam ñaaju. ndax lan. ndax lan parce que tout simplement ndam ñun jàpp nañ ñi ab réew moom mënuñu ko yor sans dialogue. Hmm. parce que démocratie lu ko lal moom mooy diisoo waxtaan acteurs yi foog ñuy waxtaan euh, mais euh, Macky Sall lu mu tëggee dialogam bi ak ko wootee mm. euh, day wone ne moom dafa am agenda bi nga xam ne moom lay exécuter depuis ci njëlbeen gis nga ko fàttali nga ko sànq le vingt cinq démb ci la ñu waroon a vote vote amut ba muy jël décision bi bu doon woon na acteur politique consulter leen comme nu mu consulter président au conseil constitutionnel consulter premier ministre am yeneen corps constitué yi boobu doon na am sens yu mën a toog waxtaan euh, mais tey mu ngi woote su ma joxoon terme de référence yi ma jàngat ko xam fan lañu jaloog bi mën a yóbbu peut-être dana ma fa gis ma toog opposition bi dem wala ñu bañ a dem man dinaa jël suma responsabilité parce que dama créer parti politique pour tox ci li ma gëm mais comme mbir mi leerut mu génn alxames ne woo naa leen altine ci ngoon pour ñu toog jirub ñaari fan waxtaan ci tolluwaayu réew mi booba léegi dara génnut leeraluñu dama jàpp ni tey loolu euh, maanaam prox ndoolu la nar a nekk ngir mu avaliser li nga xam ne moom la namm hmm. moom mooy lan tey légalité bi daf ko bëgg a pousse pour teg beneen légalité bu bees mais légalité boobu mënta juddu ci anam yu nekk parce que loi wu CEDEAO yi duñu wax moom mooy règle du jeu yi code électoral ak yooyu hmm. mënuñu ko laal tant que amul benn waxtaan préalable ba mu am consensus léegi nag ci consensus boobu gis na ko xam na ne tey bu dee am na ay candidat yi nga xam ne mat nañu dix-neuf daanaka ñaar kot wala ñett nar fa dem c'est qu'il y vrai problème bu dee Sénégal am na lu toy di trois cent vingt-sept partis politiques lim ba nga xam ne en tout cas ñoo fa nar a dem matul téeméer mm-hmm. et que ñooñu boo xoolee daanaka ñu ànd ak moom la ci majorité bi war na xam gëstu xam ne y a vrai problème mais mais kon ni la mu wax ne euh, saytuwaat euh, processus électoral bi ndax ñiy ñaxtu dafa daal di bëri euh, bokk na ci candidats spoliés yi nga xam ne moom président dana leen dana leen recevoir waaye itam ci candidats yi nga xam ne euh, ñoom lañu jote validé dana leen recevoir ndax loolu nekkuloon motif bu valable su nekkee da ngeen laaj ci terme de terme de référence moom wax na ne ngir ñu jooyantiwaat processus bi ci bokk waaye itam jàpp date ngeen élection yi ndax loolu rek waru woon doy comme terme de référence pour ngeen dem fekk fekkee teewee daje boobu. non loolu doyul comme terme de référence xam la moo tax Euh, parce que mbir mi wax na ko dafa ne ñu waxtaan pour trouver consensus problème mu consensus dafa nekk benn notion bi nga xam ne notion piège la en droit parce que droit waxula consensus bi ci yan anam la ñu ko war a amee ak ban dayo la war a am ce qui veut dire que ña fay dem yëpp bu nu génnee bu ko neexee mu jàpp ni consensus am na consensus am na ndax waxtaan am na te amoo fenn fi nga ko mën a jooy amul benn conseil constitutionnel mën ta àddu ci notion wu <laughs> conseil donc moom day jàpp ni rek lu nu tëgg léegi nag loolu mën na nekk benn moyen pour mu avaliser li nga xam ne moom la nam te lu mu nam euh, réere wuñu lan la bëgg a def ci sax ci li ma jàpp moom mooy bu ci njëkk mooy du ma bett bu dialogue bi pare ñu jël benn projet de loi en urgence nee ñu Sénégal dëddu na conseil constitutionnel ña ngay wëy wuti cour constitutionnelle parce que jafe-jafe yi ñu am daf ñu yóbbu ci nécessité effectivement ñu am cour constitutionnelle. dissoudre conseil constitutionnel. non du ko dissoudre. maanaam du leen tudd. du ah, leen daf leen di tëb. maanaam da leen di court-circuité. kon xam nga Macky Sall depuis mu toog fii ci Sénégal. par rapport ak loi bi. Mhm. politique am ça oxy entre contournement ak détournement de la loi soit hmm. day contourner loi bi wala mu détourner tey lu ñu nar a def moom mooy institutionnellement du bett ñu contourner conseil constitutionnel maanaam ñu teg benn cour constitutionnel jox ko compétence yi nga xam ne moom la ñu ko jox mais à travers une loi organique xam nga loi organique dafay yomb. 92 hmm. ñoom hmm. tey assemblée nationale lu ñu bëgg mën nañ ko def. mu jàll le conseil constitutionnel même ci boppam bu ñu ko interroger woon day valider parce que day xam ne ñii démocratie moo leen ko loolu du ma bett ñu am loolu comme résultat. Hmm. benn bu dialogue bi passé. dialogue bi passé deuxièmement mu ne gouvernement intérimaire gouvernement intérimaire euh, mën nañ fa bañ a yegg man laaj buy sampu ba sax ci suba aw ma tontu bi. mooy ngir yàlla Macky Sall lan moo ko tere le premier avril comme dafa bëgg a nguuru ba sës le premier avril bu xaaree ba ay vingt trois heures au moins mu démissionné le premier avril mais à condition bañ a nekk poisson d'avril c'est-à-dire mu nekk démission dëggantaan léegi bu démissionné qu'est-ce que ça fera mais bu démissionné mais président de l'assemblée dañuy nekk ci cas nga xam ne moom la constitution bi prévoir. ok mu moom day bu démissionné. moom ci boppam. lettre de démission bu ko conseil constitutionnel jotee. conseil constitutionnel day constater que am na vacance du pouvoir léegi ci lay woo président assemblée nationale ne ko parel dinaa la installé tel jour pour quatre vingt dix jours mois léegi kooku yoon def ko tëkk gën kaan bëri 90 jours gën kaa néew 60 jours boo organiser élection yi du ñu am gouvernement intérimaire du ñu am transition du ñu am du am du ñu am problème yi nga xam ne moom la ñu nar am hmm. lu tax mu bëgg a ñëw jël suñuy lenge yi nga xam ne dañu ko jël raxas ko ba mu set jox ko ko mu ne da koy sànni ci suuf maître da yaakaar ne dialogue bi war na si mun a sukkandiku pour aussi jàpp date boo xam ne date bu jéggi 2 avril lay nekk mu teg ko ci consensus ba tey mën na nekk. waaw xam nga problème mu date bi euh, yàgg naa ko wax même su ma yenn naataango opposition bi bu ma leen di wax mbir mi la leen di déranger mais c'est que bu ñu bëggee réew mi avancer foog ñu teg ko ci dëgg. c'est-à-dire ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay juriste nekk ci opposition bi euh, lu ñuy ŋàññ ci tailleur constitutionnel yi <laughs> waruñu ko gis ci ñun tey ba nit ñi naan président euh, conseil constitutionnel dafa war a fixer date bi ma ne leen non conseil constitutionnel mënut a fixer date bu ko defoon décision boobu euh, du du nekk décision bi nga xam ne ci yoon la tegu constitution moo ne président de la république mooy convoquer lu collège électoral par décret article 137 bu code électoral wax ñu ne que décret boobu daf ko war a jël juróom ñetti fukk euh, quatre-vingts jours plutôt euh, avant la date du scrutin maanaam donc quatre-vingts jours avant scrutin bi minimum au mois au mois ci la war a jël léegi boo ko defee loolu ñaata la quatre-vingts donc. Euh, romb nañu avril. deux deux mois la. vingt jour donc romb nañ. tey laaj buy sàpp moom mooy est-ce que mën nañu pousse président de la république mu jéggi code électoral ñu gëm bàyyi ko gis nga bu ko defee on ne fait que différer le problème. parce que day ñëwaat parce que conseil constitutionnel fàttali na ko ci décision. Mhm. nee na il est le juge de la régularité de l'élection régularité de l'élection mooy est-ce que processus bi yëpp jaar na yoon mhm. léegi mën na jàpp gis nga candidat yi nga xam ne ñooy ne ñu dem élection. Mhm. du ma bett que bu ñu jéggi woon délai boobu ñoom dañuy jàpp seen cell bu ñu demee ba gisatuñ ci seen bopp di nga gis kenn ku génn <laughs> ne processus bi dafa jalgati yoon mhm. nañ ko annuler parce que moom peut-être faluñu ko wala gisul bopp bu ñu demoon ba am deuxième tour mhm. candidat bay ñàkk deuxième tour bi bu ko neexee mu demande ñu annuler élection bi parce que décret de convocation bi dafa violer code électoral ah mm. bien sûr ouais. et boobu mm. ñu ngi wax article 36 mais article 35 dafa prévoir hypothèse bi nga xam ne élection yi dafa am ba pare conseil constitutionnel annulé ko moo tax article 36 ne le président de la république reste en fonction reste le président en fonction plus voilà donc reste reste au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur mais kon ma nga kon tey li nga xam ne moom la candidat validé yi bëgg def ca conseil constitutionnel ak euh, yenn organisation